ñu demee te garage bi féete sa Nord ñoom nee ñu nag dafa jot nag ñu bàyyi leen di leen joxoñ baaraam tuuma ndax yenn saay kon jaaykat yi lal ci peggu tali bi ñoom ñoo koy sooke daañu duy it jëmale ci génn ak àdduna Cheikh Amar néewam wàcc na fi niki rek ci guddi gi bi min wi jotee daañ ko jébal boromam wala sax jébal nañu ko boromam niki tey jii loo leex la ñu saa toftal dana sa bokk li yéen kay xëy dëxëñ mooy ndar képp la jotaay xibaar xel El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxir lu ñu xuusi faram fàcce gi mu ngoog di leen dalal jàmm si bii la jotaayu xibaar dañ leen ko waxee ci ndorteel li euh, commandant bu brigade bu gendarmerie bu Koumpentoum euh, Tamsir sànni la daan wuyoo jàppale ne kon faatu na ay def katu ñaawteef euh, ñoo song fi nga xam ne rek moom mooy gendarmerie ba ni ki rek démb guddik sax alxames jàpp àjjuma tey jii defkati ñaawteef yooyu nag dañoo yoroon ay ngànnaay si lañu ko sox bal mu doxe fa ñàkk bakkenam gendarmerie bu Tambacounda jamono ji wàcc nañu sa dëkk ba ngir nag euh, jéem a teg loxo defkatu ñaawteef yooyee mu mel ni kon sax mi ngi xew foofee euh, sa gendarmerie bu Koumpentoum commandant ba Tafsir euh, Tamsir Sané doxe fa ñàkk bakkenam daañ ci dikk ak sunu si sunu yeneen jotaay xibaar ak papier ba nga xam ne rek moom moo ñu toppal boobu la jotaay boobu lay xibaar ñu wutali sa géejuwaay foofee ñàkkum kaaraange la fay euh, waxtaanee ndax nee nañu kon def kati ñaaw tey fi ñu ngay wéy di fa dicté seen i loi loolee la ñu bëgg mu euh, dakk looloo sabab nag ab kuréel bu nga xam ne dañu ko fa samp juróom ñaar fukk ak juróom ci ay acteur euh, jot nañu nag woote ab ndaje ngir waxtaane ko ñu ànd seex nang ko bakk ko Mouhamed Diaw jafe-jafe yi ñeel ñàkkum kaaraange doon na luy teel ñi jóg ngir xeex fitna ca géejawaay ci bile diwaana nag am na ci gox yu wóoradi bu ñu doyloo njiital commité de pilotage bu dialogue sur la justice et la sécurité bu géejawaay. yakkataan gi am na. <laughs> li